تدعو من دون الله من لا يستجب له إلى يوم القيامة الحمد لله رب العالمين الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى ثم الصلاة والسلام على أشرف العالمين سيد الأولين والآخرين نبي الرحمة الذي أرسله الله رحمة للعالمين sayyidina wa xabibina wa mawlana muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari azim amma baadu ayuha almushahiduna alkiram fi télévision sunu label tv nuxayikum bi taxiyati alislam taxiyatan mubarakatan min indillahi tayiba wa hiya assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh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 ñaan tàbbi nañu ci at mu bees yal na yàlla beesalaat mbir yépp bi jaahi Mustafa sallallahu alayhi wa ma ko waxee woon rek bi ñuy tàqalikoo ñu ngi jub bis bu rëy muy bis bu ñu tuddee Ashura bul fàtte yow may seetaan yaa ngi ci weer wu ñu tuddee mu Muharram muy premier mois ci weeru jullit kon neel jullit ñi at mi nga xam ni weesu na mu ngi yemoon ci weer wu ñu tuddee zil xijja muy weeru aj kon foofu la at mi yemoon kon bi weeru aj jeexe yaa ngi tàbbi ci beneen weer wu ñu tuddee muharram muy premier mois comme ni ngay waxee janvier yow mi comprendre woon kon neel ndekete ah ñun jullit ñi ñu ngi ci sunu janvier mbokk yi parce que l'islam dañoo jékki-jékki wax naa la ko ne la Omar bun Khattab organisé wu woo Aboubacar woo woo Ousmane laay wax woo Aliyun waxtaan ak ñoom ñu tënk defar calendrier boo xam ni ci lu ñu mën a natt jullit ñi seeni weer natt jullit ñi seeni événement loolu nag Omar bi ko jële da ko bi ci hijriya muy gàddaayu njol màkka gi waaye ni ma ko waxee keroog nee naa leen du bu ñu jàpp ne sax yonent bi ci weer wi la gàddaay déedéet ci weer wii la Omar xa Xattaab defar calendrier waaye du ci weer wi nag la yonent bi gàddaay bi ñuy tàqalikoo ma waxoon la ni bëccëg gi ñu jub muy yowma ashura ñëpp nangu nañ ni bis bu am valeur la parce que Aïcha nettali na ni yonent bi sax sallallahu alayhi wa bi muy nekk Màkka doon na ko woor lu tax mooy ci jamonoy jaahiliya nee na lenn ci waa Màkka dañ ne dañu defoon bakkaar bu rëy bàkkaar boobu daal ñoom heure boo bis bii ñëwee muy dixième jour ci muharram ñoom dañ koy woor pour jéggaloo ko yàlla seen bàkkaar yonent bi di leen ci toppandoo di woor lool pour jéggalu ci yàlla yonent bi ba mu ñëwee Medinatul Munawwar gis na sax yahuut yi Medina di woor yonent bi jàpp na yawuute Medina tamit même ñoom loolu rek la ñuy woor woor pour jéggulu seeni bakkaar ba darñeel at mi moo tax foofu ñu bëri ñu ngi foog yonent bi lan moo tax laaju leen ko laaju leen ko ba at mu mujj mi parce que yonent bi masul jàpp ne ñoom beneen woor la ñuy woor wudul wooru jéggulu gi te moom ci lañ ko fekk muy defar nag ñoom boobu yow ma Ashura ñëpp koy woor yawut yi dañ koy woor julli ñi dañ koy woor yonent bi nekk Medina di ko woor ba bi lislaam amee kooru boppam yàlla andil ko ne ko nag léegi am nga sa kooru bopp ci la yonent bi na leen bàyyee koor googu te nag moom mu tee kooru boppam gii di shahru ramadan mubarak di weeru koor waaye mu ne déet sax xaarama laajaale yahudi ñoom seen koor gii pour lan la ñoom mo tax loolay dernière année rasulullahi ci la leen laaj nag ne seen koor gi lan la ñoom ñu ne ko ñun de bisu tam xarit yow ma ashura li tax ñu koy woor mooy dañ ci woor di santale Muusa yàlla ci lan ndam gi mu ko may ci bisu biir ndax bis boobu ci la labal na ndam looloo wéy ba tey ah yonent bi ne leen yéen gënoo leen maa yeey ci yéen tell Muusa mag jullit ñi bi ne waaye xam nga nu may def moo dus ci la Moustapha ne bu déwénee léegi dootuma woor rek Ashura yem ci mais bu déwénee damay woor Tashua muy neuvième jour bi woor Ashura muy dixième jour bi mbokk yi yàlla dogal Moustapha ca sa fekk ko fi kon da ngay d'accord ne daan na woor Ashura Tashua amoon na yéenéem kon woor bisu reer bi ak bis bi ñu yeewoo muy bisu tamxarit lu jar a bàyyi xel ngir lan njool mag loolu dafa jar critique yi ak débat débat mais ay woor tam xarit euh, maanaam bidaa la maanaam est-ce xam nga luy bidaa wax naa ko de moo du bidaa mooy lu ñaaw bidaa mooy bon dama ne julli tisbaar tàkkusaan timis li muy baax baax baax baax musaa gis nga Moodu ku julli tisbaar 18 rakka ñu wax nga ne noo man par 18 rakka lay joxe maam yaa ngi def bidaa bu bon te julli euh, tisbaar baax na mbokk yi loolu mooy bidaa mooy def lu jaaduwul loolu mooy bidaa mais bul ma ne lu ñu def ci ginnaaw yonent bi mooy bidaa yonent bi bàyyiwu fi alquranul karim bu am tomb bàyyi fi bàyyiwu fi alquranul karim bu ñu maas bàyyiwu fi alxuraanul karim bu ne ci ay kaamil sa waay nañu bàyyi xel yooyu yii mag ñi santaane ci bis bii mbokk yi nañu concentré wu ci yépp te def ko ñaan ci njéggal ñaan ci yërmande yàlla ñaan ci jubóog borom bi liñ ñu ci digg yépp daañ ko ci am mais ci kaw ñu gëm ko mbokk yi te bañ a diglu ñuy yàq de parce que am na yiw woo xam ne ku ko xañ sa noon la koor yiwu koor ku la ko bëgg a xañ mbokk yi yàlla nag am na ci weeri weer wu mu màggal ah limal naa la ni fukki weer ak ñaar moo am bi ñuy jàng keroog maa yow ci gis na bi barki démb fukki weer yi bi ma la ko àndilee mais terewul yàlla tànnaan na ci ñeenti weer yoo xam ne boole wu maanaam boole wu ne benn weer ci niveau parce que daf ko tudde weer yoo xam ne dafay araamal sax jullit di ci xeex ngir respect gu mu jox weer yooyu moom yàlla ak fonk gu ko fonk yonent bi wax ci xadis ne asannatu isna achara shahran minha mu ne at mi fukki weer laak ñaar arbaatun mu xurumun am na ci ñeent nag yoo xam ni yàlla dafa daf ko daf ko weer yooyu ban mu ne salaasatun mutawaaliyaatu ñett yi ñoo tegaloo zul iqdatin zu xijjatin muharramun mooy ñetti weer mooy ñaari weesu ak bii ne ñaari weesu ak bii ñu ne ay weer lañu ñu yàlla xormaal beneen bi ci des mu ne wa rajabun mi nga xam ni alladi bayna al jumaada wa chaabaan ak rajab mi nga xam ni ma ngi ci diggante jumaada ak chaabaan mbokk yi rajab zul iqda zul hijja muharram ñeenti weer yi weer yu yàlla xormaal la waa mbokk yi lu yàlla xormaal jox ko valeur jaamu ci yàlla ci jamono yooyu est-ce que du am valeur nitu yàlla bi dana woon in azumat zamanu wal makaanu azumati taatu wal isyaanu nee na jamono bu ne na ko yàlla valoriser yëgal ni waxtu woowu mbaa jamono boobu jaamu ca yàlla noonu lay amee niveau waaye it mooy ca yàlla noonu lay amee niveau de kon mbokk yi saraxe yiñ ciy wax kenn waxul ne saraxe tam xarit dong lay doon kenn waxul lool waaye dama ne saraxe ci yeneen jamono saraxe tam xarit dina ko doole du ñàkk yépp dana wee ci biir waxtaan yi koor ci beneen semaine koor ci xam tamxarit dina ko doole parce que bis la bu ñu bu de bis la bu yàlla jox cëral de ndax weer wi rek yàlla cëral na ko d'abord ba pare weer wi mbokk yi luñ ciy dégg mooy liñ ñu sant nañ ko def fukk ak ñaar yooyu mag ñi tënk maanaam fukk ak ñaar yépp buñ ci bàyyi benn ci bëccëg gi luñ ci mën a def nañ ko ci def waxoon naa la ni bu ñu dajee ma jox la aaya alxuraan bu wane ni fukk ñaar yooyu yëpp da war nañ koo def sunu borom ay wax yàlla moone laa xayra waxal ñoom daal ñool màkk ne leen laa xayra fi kathirin min najwaahum illa man amara bi sadaqatin aw maarufin aw islaaxi bayna naas yàlla teg ci ne wa man yafal dalika ibtigaa mardatillahi loolu rek ci am solo ibtigaa mardatillahi li ngay def ndax yàlla nga ci wut loolu rek la ñuy vérifier yàlla ne fa sawfa nutihi ajran aziman bu dee mbindum sëñ Tuubaa nga ko gis sëñ Tuubaa du ci fay man yàlla maa la ciy fay <laughs> bu dee ci mbindum Alaaji Maal li nga ko gis Alaaji Maal du la fay maa lay fay bu dee ci mbindum seex na seex saat bu nga ko fay maa lay fay bu dee ci mbindum maam xalifa nga ko gis maam xalifa du la fay maa lay fay bu dee Baye Abbas Sall nga ko gis ci mbindam Baye Abbas du fay maa lay fay noonu la ko sunu borom waxee ci alxuraan booy alxuraanam gii moo ko wax de yàlla moo ne seen yii yëpp seen yii yëpp maanaam seen conférence yu bëri seen réunion yu bëri yi seen daje yi di waxtaan yu bari seen émission yii yu bëri yi dara laa leen ci dul fay lu dul lu dul déglu leen mbokk yi de illa man amara bi sadaqatin lu dul ci biir seen waxtaan yooyu ngeen ci conseil nit ñi di leen digal ñuy saraxe mbokk yi kon ndigalal sëñ Tuubaa bii ndigalal Seydul Xaaji Malik wii ndigalal Seex na Seex Sadbu wii ndigalal maam Xalifa Ñas bii ndigalal Baay Abbas Sall bii ndigalal mag ñu baax ñii nga xam diggal na ñu ci tamxarit yii nga xam ne buñ ko toppee sax fekk ko ci xadis yi dama ne est-ce que wi ñu dugal baaxul lan la ñu dugal bi sadaqatin aw ma aw maaruf nag mooy mooy yeneen yi ci topp yëpp fukk ñaari bi sadaqatin mooy benn ma maaruf mooy li ci topp yëpp li ci topp yëpp maaruf la raayal boppu njëriñ tusngalul maanaam seetil ku feebar demal seeti borom xam-xam kazalika boo ko toppee mbokk yi fukk ak ñaar yi lépp ci maaruf lay dugg mbaa sax dugg ci aw islaax benn naas am na ci yoo xam ne mën na dugg ci islaax benn naas waaw seetil nit kay loolu mënul defar sa diggante ko mënul gën a yokk sa diggante moom cofeel islaax bayna naas sunu borom ne yii de ku ko def wa man yafal dalika ibtigaa mardatillahi kuñ ko digal nga koy def waaye nag nga ne defuma ko ngir sax bëgg nit ñi tudd ko déedéet dama koy def ngir sàkku ci yool mbokk yi sunu kooru tamxarit gi dañ koy def mu ngir wut yool sunu to sunu jullik naafila tamxarit yi dañ koy def ngir sàkku ci yool sunu ray boppu njirim yi sarax leen alal dañ koy def ngir sàkku ci yool sunu saraxe yi dañ koy saraxe ngir sàkku ci yool ibtigaa mardatillahi yàlla ne ku ko defee noonu ñu mu ne fa sawfa nutihi ajra azima soo dekkee bul laal ala bul laaj alaaji Malick bul laaj sëñ Touba bul laaj Seex sadd bul laaj maam Khalifa Niass bul laaj kenn laaj ma man yàlla maa lay jox fa sawfa nutihi ajran azima maa lay jox mbokk yi kon ki ko bëgg xañ def ko noonu ki ko bëgg a xañ daal xañ ko sa bopp ne ko bàyyi naa la bu yàgg maa ngi topp ci waxee laaj Malick yi bàyyi naa la bu yàgg maa ngi topp ci waxi Sëñ Tuubaa yi bàyyi naa la bu yàgg maa ngi topp waxi maam Xalifa Ñas yi bàyyi naa mag ñi ñoo santaane yii bokk yi te lépp nag lu mag ñi santaane càmbar nañ ko ba xam ni yiw lay joxe mag ñi doog koy wax mbokk yi yiw a ngoog wu rëy wu toog di nu xaar ci bëccëg gii ñu jëm muy bëccëgu tamxarit mbokk yi bisu reer bi mooy neuvième jour bi bu nu yeewoo ca suba sa mooy tamxarit mbokk yi reer waa ngoog reer wa sax li muy doon doon aada am na solo ndax nama ko waxee xasan lañ ca posane woon ci guddi ñun nag jullit ñi ñu def sens contraire togg ay reer mais kenn du posane kenn ñu wane ni ñun ay jullit lañu mbokk yi xasan ki ko waru ko posone moo xam ko posone xasan jabaram donte du moom moo jël décision bi waaye moom lañ ko sant moo ko d'accord wa zawjatuhu xaabat bi Cheikh El Hadji Mal di wax daf ne Assane de soxnaam nga di jaadatu ñàkk na perte na bi aksari xaybatin gën jaa ñaawi pert ndax lan mu ne moom moo ko nàndal li nga xam ni mooy poson bi ndax la moom la Yazid nax ba fexe mu créer loolu mbokki reeru tam xarit ci guddi mu defar ci asan poson waaye damay bañ rek ñu ne loolu daa war a tax kenn dootul reer tam xarit <laughs> déedéet déedéet Modou dañuy reer <laughs> ah dañuy reer <laughs> damay bañ tamit ñu ne Ousseynou li ñu rey ca Karbala ca suba sa muy jour tamxarit tax tax nga ne noo kenn waratul màggal tamxarit déedéet de maanaam bu ñu rayoon Ousseynou jouru maanaam layatul xadri dañu layatul xadri na leer am dégg maam nu ñu dégg diine bu ñu rayoon Ousseynou jouru layatul xadri day yàq layatul xadri du ko bu buñ ko rayoon jouru korité du yàq korité du tax ñu ne kenn dootul korité buñ ko rayoon jouru tabaski du yàq tabaski du tax ñu ne non kenn dootul rey xar yi ndax Ousseynou lañu rey non no non non non diine dafa laaj dégg mbokk yi nañu xam li ñuy def len la mooy dañ koy def ibtigaa mardatillahi li am solo mooy li nit di def na ko sàkku ngir am ci ngërëmal boromam yal na yàlla nangul nu bi jaahi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam teg naa baaraam mbokk yi suba ñu dajawaat maag yéen ci waxtaanu ashura muy waxtaanu tamxarit gi mbokk yi ñaan borom bi yal na yàlla defal ñu dégg ak topp gërëmaan ñëpp santaan ñëpp ñaanal sunu directeur Hadj Makhtar Sylla yàlla na yàlla dolli taxawaayam ñaanal personnel bi yëpp yàlla na yàlla taxawu leen teg ko ci sax na ay dama yóbbaale ñëpp géew ñaan borom xam-xam yi yàlla na yàlla may nu ñuy wéralante te bañ di werante yàlla na yàlla may nu ñuy wéralante te bañ di werante mën nuyu ci ziar ci sunu mag alxaaji Idrissa Diop ba rahmatullah alayhi tafsir oustaz Omar Diop mu yóbbaale ñëpp géew sama jigéen ajaratu yaa xari Diouf mën nuyu la ziar la ndokkeel la ñaan sunu borom yàlla na yàlla nangul lépp luñ ci jaamu yàlla yal na yàlla nangu ko mbokki asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wa man adallu mimman yad'u min